mënuñoo jël repos ce n'est pas le moment du repos du temps au repos parce qu'encore une fois nos frères dignes euh, sont en prison et ils ne le méritent pas ils n'ont fait rien du tout pour mériter la prison lu euh, dañu def rek seen liggéeyu citoyen sénégalais comme bépp citoyen bu baax ñu jàpp leen dugal leen ci kaso bi euh, comme li ma leen wax euh, ndeysaan ni ma koy gisee da xool naa nag j'ai pris mon temps et regardé Facebook et l'étudier je vois que c'est la guerre des générations donc c'est la guerre entre la technique dañoo am temps boo xam ne moom la dundu te temps boobu temps la boo xam ne mënoon ngaa fen fen bi du génn mënoon ngaa dem dans village nga ñëw nga ne leen yéen ñëpp dinaa leen tabaxal ay teen yu bees may leen xaalis wala ubbil leen ay école yu bees ubbil leen ay hôpital yu bees boo ko deful dara du la ci fekk dara du la ci fekk dara du la ci fekk boo ñëwee man ngaa fen nga wax lu dul dëgg nga def lu dul dëgg dara du la ci fekk mais le problème qui s'est posé euh, fast forward maanaam avancé euh, film bi nga en 2019 au 21e siècle boo nee tunkara ñaaw nga sax bu demee ci réseaux sociaux yi dugal ko day dem viral maanaam 4000 personnes dinañ ko seetaan dans dans 10 minutes donc, les, gens se méfient de ce qu'ils disent. Mais nous, nos médiocres, en ce moment, ils ne savaient pas cela. Moi, tax léegi boo leen comme ni ma leen ko politiciens yu bees yi Ils wax duñu wax ils ne disent rien ñi dëgguwul bopp ñi dëggu ñoom dinañu wax ñi dëggu ñi ñeme ñoom dinañu wax mais ñi ñemewul ils ont peur de parler parce que nous ragal mu rattraper du coup du pas waxati dara mais comment se fait-il que le même Macky qui parlait du n'importe quoi n'importe où il est muet vous ne l'entendez plus parce qu'on l'a conseillé on l'a dit que ton mensonge était farce Avec sa déception ne ça ne marche plus dans ce monde dans ce nouveau monde Nathalie Yam, elle est ivoirienne. Elle a eu les couilles, les couilles d'aller en Russie et critiquer la Côte d'Ivoire et Alassane Ouattara. Et critiquer la France. Il a été expulsé. Elle a été expulsée de la Côte d'Ivoire. J'espère bien qu'elle n'a pas été expulsée euh, de la France non plus parce que bu lolou amé on va ñun dinañu dajaloo les patriotes on va la prendre en charge ñu wutal ko asylum mu ñew Amérique et elle sera bien protégée et on s'occupera bien d'elle MashaAllah, allah danañ ko topato, parce que doomu kharami mom ku len ŋàññ rek daf len sonal déedéet aduna bi nak du noonu Guy ce qu'il dit c'est la vérité Guy du saga sax Ken musul dégg mu wax wax bu ñaaw bu jóge ci lamiña. nobody ever heard it violeur la ma wax ci wax yu gëna kawé. kawe je préviens qu'on parle sur les nouveaux étudiants que l'État n'arrive pas à orienter please wal Diallo Aliou euh, je ne suis pas au courant de tout parfois euh, et aussi, euh, j'aimerais bien savoir de la situation. Donc, euh, si vous avez les informations, vous pouvez les partager. Et vraiment, on peut communiquer sur le inbox. Et on va venir euh, un autre jour. Et on en parlera, Inch'Allah, pour Aduna Jotchi. Parce que nous, on est là pour faire passer les informations que les journalistes payés de Macky Sall ne vont pas les faire passer. Parce que, télé amatuñu venu Sénégal euh, déjà pour du coup euh, imaginez si Salif Keita avait une télévision Salif Keita ce patriote ivoirien imaginez si il une télévision nationale est-ce que tu sais que les Français vont sortir de du Mali du Mali dans une semaine ils vont fuir parce que xolal bi mu demee social media ben vidéo bobu mu def vidéo bobu c'est parti vital combien de fois nous notre médiocre le plus grand voleur le le criminel fiscal le délinquant fiscal lui euh, biko sénégalais yi ñakal, biñ ko sonalé sur sa fausse musique bi mu def ñun xam nañ ne gëmul jigen ñi gëmul xalé, Sénégal nous on le connaît soit mi ngi xoolati jabaru jàmbur bu mu bëgg a wala mi ngi wut ñaareel mi ngi xool kër goo xam fa la bëgg a dugal bi mi ngi jéem a xool bu bu mu waat parce que moom attention moo koy dundal he lives off attention attention mooy dundal doomu xaram attention mooy dundal waa attention bu ko nit ñi déglootul waxatuñu ci mom rek day feebar il devient malade mais du coup parce que il ne mérite pas à être décoré en tant que musicien peut-être mën disque d'or je lui donne I, give him that mais en tant que citoyen en tant que un citoyen qui représente son peuple il ne mérite même pas un chien de garde il ne mérite pas un chien au Sénégal mais attends je vous dis en tant que citoyen sénégalais, il mérite rien. En tant que chanteur, il mérite la disque d'or. Sans problème. Donnez-lui. Masha'Allah, il a le talent. Masha'Allah, il possède euh, la voix. Masha'Allah, il possède l'énergie. Masha'Allah, il possède peut-être aussi même, on peut dire, le charisme. Du coup, on l'aime beaucoup. Du coup, il est bien aimé. Mais, du côté du patriotisme, c'est un défaillant, c'est un délinquant fiscal. Euh, ni ñu bari nag euh, comme suñu saga. Mama ñun ñi ñuy saga. ma may len dara ko ci xam mon nom c'est Ousmane Tunkara. je ne dois rien au gouvernement sénégalais je ne dois rien au Sénégal je ne dois rien, je ne vous dois rien. Donc, euh, du coup, m'insulter, c'est comme si tu insultais euh, vraiment euh, la rue que tu marches là-dessus. Boy saga tali bi nga xamné ya ngi dox ci kawam. Boy saga tali bi ngay dox ci kawam. Mi bo lolu mi ngi melni ngay saga Ousmane parce que Ousmane Tunkara da fay servir pour me a le link entre yow ak et les ak bandi ak voilà maintenant je vous présente Youssou Mayou Kondour. comme niko sama di Youssou Mayou Mayou il vous doit vos impôts il vous doit votre religion il a manipulé toute la ville def na le bi yep ay il a manipulé Sénégal yep def na len ay kat ak ay Madame, il nous a créé un pays de cafards Benen, il nous a créé la TFM Madame, télévision Binga nga xam machine la pour élire Macky Sall ak ay nitam yu bon et les malfaiteurs pour dëggal doomu kharami, djel ay ñu melni Bouba Ndour fa ñuy comprendre nga donc benen affaire il est aussi un délinquant fiscal manam amel na réewu Sénégal khalis khalis boo xam ne tey su ko feyoon xale yi mën nañ cee faju mën nañ cee defar ay lekkool mën nañ cee defar seeni ay euh, jarul ma koy présenter wala wala Alioune sal jarul aussi ma leen koy présenter avec tous les autres délinquants qui ont détourné les fonds du Sénégal donc vous voyez la différence voici un Sénégalais lambda Ousmane Tunkara et voici les délinquants de la main gauche donc saga ma man amalu leen njariñ xas ma man amalu ma sax nekhul amalulen bien vrai que l'imay nakari bariwul Amna sama kharit bu ma ma mu ma Ousmane dama la ñee ma ko loma parce que bari du la nakari, ma ko lu dul dëgg lu mu nakare doomu je pense que y a un proverbe qui nous le dit toujours nit sos warula nakari nit ludul deug buñ la ko waxee warula nakari ça me fait jamais mal buma nit di wax lu deug musuma nakari ci aduna ça me fait jamais mal djegal len ma ngeen bal ma touti rek euh, dafa am ku may yes salam ok pare na voilà donc ma ngi wat mais euh, suba incha euh, tay mom dañu ñëwon rek pour affaire Guy mari Sagna bi comme toujours Suba, il y aura un live spécial. Ce sera à 2h45. Madame bi lay tambali le live bi. 2h45 heure Amérique. Moi, 7h45 heure de Dakar. On aura en ligne notre sœur, euh, dina len jox Legi. Euh, suba dina vraiment euh, comme ni ma ko euh, live spécial lol parce que live bi l'ikoy waral suba mooy ñaawteef bi nga xam ne moom la ñuy teg sénégalais yi Sénégal euh, jigéen ñi surtout ak xale yi euh, te suñu sœur boobu nekk euh, fii Canada suñu sœur boobu mi ngi tudd salut Canada voilà cab ñaaw wala cab ñaaw la tudd ñu rey sœuram boobu diib ñaaw Euh, defe naa jot ngeen leen gis ngeen vidéo bi vital partout sur l' internet euh, Cap ñaa boobu ñu rey euh, sërëm boobu diib ñaa dinañu wax ak ñoom wax ak ki nga xam ne moom ji ko on connaît le nom et ça vous sera dévoilé et le grand frère aussi du mari koo xam ne aussi il était complice complice laa ko mën a tuddee parce que tey bu fekkee nit dafa rey doomu aadama nga sutural ko ci nga faral ko ci nga nga dencal ko ay mbóotam ba yow sax ñu yóbbaale la ci kaso euh, je pense qu'il est grand temps qu'on protège les les femmes et les enfants au Sénégal boo leen gisee réew oncle Sam bi dem kanam wallahi xaj sax xaj laa la wax xaj bu fi accidenté dañ koy toppatoo waxuma la doomu aadama xaj bu amee problème dañ koy toppatoo waxatuma la ak nit njaay ak ay noppam donc loolu moo waral inshallah allahu rabbi suba te loolu buñ ci jógee vraiment ak ay euh, waxtaan tey ak madame ak xale yi sama doom yu jigéen ils ont bien suggéré aussi que ñu créer benn vraiment association wala benn non profit boo xam ce sera euh, uniquement pour les enfants et les femmes maanaam néew ji doole ji maanaam gone yi ak jigéen ñi nga xam ne dañ leen di néewal doole du coup on va créer dans ça euh, maanaam euh, équipe légale legal team boo xam ne tey jigéen bu ñu maltraité wala jigéen bu ñu dóor wala jigéen bu ñu def ñaawteef dinañ ko jël euh, vraiment en charge jëlal ko avocat pour ñu mën a topp cas bi te xale bu ñu def ñaawteef aussi dinañ ko jëlal avocat mën a topp euh, euh, cas bi te aussi nous allons aussi protéger et aider euh, quelques euh, associations des femmes et des enfants yo xamne vraiment dañoo nek euh, ci soxla ndimbal vraiment yene dinañu soxla ndimbalu ñëpp nak on ne parle pas seulement euh, waxuñu affaire finance mais surtout encore madame Mora <laughs> Mawra euh, euh, whatever whatever whatever mi ngi bind de xawma faux profil nga xawma vrai profil nga bu dee faux profil nga dina la fermer mais bu dee vrai profil la ñu ngi lay déglu ba déglu ba nga bo waxul njaaxum mais non non non on va pas protéger les hommes parce que les hommes ils ont ça pour se protéger et ils ont leur couille pour se protéger they got balls so they can protect themselves ce qu'on va protéger c'est les femmes mais je ne vais pas aller à la distance de Youssou pour dire que voilà Gordou du nay wala muy je ne vais pas luxus ni nay y a rien de ces deux choses ce qui est ce qui est sûr moi on fera tout ce qu'on pourra euh, euh pour protéger les femmes parce que Il il euh, y a beaucoup de meurtres euh, sur les femmes Il y a beaucoup d'abus sur les femmes Il y a beaucoup d'abus sur les enfants je ne vais même pas commencer à citer les cas euh, euh, jigéen ji ma gënoon naw c'était cette femme Zainab. Je euh, ne sais ndax si a ngi ndaw soosu amoon daara Imam c'est une dame qui m'a fait pleurer donc demain Inch'Allah, le live sera juste sur ça ci jigéen ñi ak xale yi ak vraiment ces meurtres qui ont été euh, que, les lois que, nos, hommes de loi ne prennent pas très sérieux té duñu punition bi du punition du donc euh, c'est important que inshallah allahu rabbi demee yéen en masse ngeen partager live bi heure 45 euh, de l'après-midi inshallah ça va commencer voilà donc encore merci mille fois et je vous donne rendez-vous inshallah demain à 2h45 heure Amérique et disons 7h45 GMT. Demain en France, ce sera 8h45. Euh, voilà, demain inch'Allah on se donne rendez-vous. Vraiment mangi tous ziyaar ñëpp di nuyu ñëpp di rek comme ni ma l'ai ko euh, Sénégal na gore ñoom Guy Marius nous euh, ñu ngi hunger strike nekkuñu di lekk Zeynab Fall Zeynab Fall voilà Zeynab Fall vraiment Mbayang drame merci. mbayang jërëjëf te mbayang dinaa leen soxla yéen ñëpp les mbayang tous mes mes sœurs mbayang la y'a beaucoup de mbayang et à d'autres euh, suñu sœurs yéen ñëpp dinañ leen soxla pour ñu waxtaan pour ñu mën dimbali jigéen ñi ak xale yi ñu protéger leen vraiment parce que brutalité bi nekk Sénégal tey lu bari ci jigéen ñi lañ ko bëgg dindi parce que xam nañ ne en réalité jigéen ak xale mooy changer àddina du coup dañ leen bëgg a éliminer surtout nous nos présidents médiocres ils connaissent ce qui est l'avancement. Voilà, euh, n'existe pas. Ce sont des profils anonymes. <laughs> ce sont de vraies personnes. Voilà, merci. Voilà, Bahna. Bahna. Euh, les faux profils, le nous le tolérer, mais les, profils anonymes, ça va. Voilà, donc c'est ça. Donc, euh, vraiment, j'aimerais bien que tout le monde, que toutes les femmes, vous venez en masse surtout, écoutez ce qu'on va dire demain et partagez les informations pour n'y njariñu parce que comme niñ koy toujours euh, maltraite les hommes aussi Oui, ouais, les, les femmes aussi maltraitent les hommes mais ça c'est un minimum comme ni ma les hommes la plupart des temps on peut se protéger le problème est que les femmes ne peuvent pas se protéger Madame, les femmes s'ils ont des problèmes ils restent avec les problèmes toutes seules voilà donc euh, c'est ça du coup on va essayer de protéger nos sœurs euh, voilà merci encore et Inch'Allah on se donne rendez-vous demain